ñu tiis kanam yu sëngem boole ko ak jaaxle li ni mel moom dañu mën a nemmeeku ci yenn kanamu nit ñi nga xam ne ñëw nañu teewee levée du corps ba ñu doon amal ci jëmm ci sëriñ Abdourahmane Fall Tilala ci hôpital principal bu dakaar ñi lay di dellu si waat ak i yoo xam ne daanaka yëpp benn la jëmale ko ci jëmm ji la nekkoon ab Baay Fall wuute naa kilifa yu bari yi nga xam ne xale yi dañ leen topp moom fu mu toll daawul woon nit ñi jëmmam sëñ Tuubaa la leen daan wan nee yaakaaroo kenn ku du Cheikh Rafal boo doo tux boo dee tux bokkoo ci moom boo dee naan sàngara bokkoo ci moom boo dee mooy yàlla bokkoo ci moom. mbaax la ñu xam si moom munoo wax lépp si moom daal. moom lu ko yàlla jox rek da koy joxe waat loolu la dundee nit ku baax ku jëf lu baax ci réew mi nag. sëriñ Abdourahmane Tilala nekk ko nit nit koo xam ne da daan boole ay nit rawatina ci wàllu mbokk. naar yi nga xam ni fii lañu seen maam juddoo fii la ñu sosoo bokkut ak naaru gànnaay yi. donc mouvement national bi. dafa re dafa dem ci quatorze régions yëpp Abdourahmane Fall Tilal mii nga xam ne moom la yàlla yóbbu tey moom moo nekkoon le coordonnateur national nekkoon la président. doxalinu rassembleur doxalinu maanaam bëgg mbokk xëcc famille jokk mbokk ak aussi tarixa yëpp la boole. bokk ñëpp nekk bokk ñëpp nag di wax toujours ci gaa làmmiñu boppam nekk leen benn ànd leen te booloo ta nekk benn. c'est un guide hors pair quelqu'un qui s'est comporté de manière honorable. mais aussi un homme qui aime faire le bien. En tout cas, c'est un homme respectable que le Sénégal vient de, par... euh, vient de perdre.